bisimilah ci HD 221 TV ñu nemmeeku ne nag coordonnateur coalition Yewwi Askan Wi ñu gën koo xam ci 2004 euh, na ni rek dañ ko investir ci élection euh, présidentielle yu 2024 euh, ña ko xamle nag di suñuy naataango nekk ci journal Jeune Afrique ñu nemmeeku ne Déthié Fall moom nag fu mu ne nii rek ma ngay waajal li nga xamante ni mooy ay tournée am ca Sénégal ga wërngal këpp fépp fuy région mu fas yéene rek teg fa tànkam ngir def ab tournée ne day ñenn ci sénégale yi euh, nee nañu kat kii di Déthié Fall daanaka rek moom soxla woon nañ ko euh, mu nekk candidat ci élection présidentielle yu 2024 ndax kat am na profil bi euh, te tamit li nga xamante ne mooy ay doom daanaka rek moom doy na leen ba tax na kii di Déthié Fall daanaka rek fas yéene daal di samp ndëndam mbokk yi li moo nekkoon li gënoon a fees ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen jox dig daje ba ngoon incha allah.